jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci leeral TV leeral point net xam ngeen ku ñu woo arène nationale Mansour Mansour Ba te Mansour Ba le grand promoteur tëgg combat boo xam ne dox ci diggante Bombardier ak ki nga xam ne mooy Franc waaye Mansour jërëjëf nga toftal ki nga xam ne mooy Youssou Ndour ak ki nga xam ne mooy jaan bi borom jaan bi Talfa bu gamer bi tey nag lamb ji ni ma gisee mbooloo mi xam naa ne Talfa tey mooy borom lamb ji waaye diggante ñang baalo ak safara booy combat yi la yoo xam ci ni tubaarkàlla masal Papa Sow ñoo ngi lay félicité bu baax a baax di la ñaanal sunu borom defal la jàmm Babacar ak Cheikh Tidiane laa àndal ak Fallou ci micro bi mbokk yi ñun la ak Cheikh daa kilifa gu ñëw. daa kilifa gu ñëw Cheikh. Cheikh kii ñëw mooy Batika Batika. Batika maa ngi lay nuyu. waaw waaw waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay. tey mu doon bis boo xam ne bis bu exceptionnel la ci ci digg mi waaye tamit bis la boo xam ne ci ni tubaarkàlla ni nga ñëwee ànd ak sa mbokk mais bisu jàmbar ak sa digganteeg jàmbaar Mansour Ba. waaw lu rafet la tey boo xoolee Mansour di ko tàmmalee ci papaam muy alaaji père ba di ko ñaanal wér ak gudd fan maam ba moom la doon am déet Mansour xale bu am comportement ak estafu jàmbaar bi ñëpp ku mel ni Papa Sow boo ñimee da ngay juum barke alxuraanu karim am yar jël ma ñëpp jiital ma jox ma comportement bu ñu ma tuddee ma jiital tey samay xarit jiital samay mag jiital sama famille jiital sama xam ne comme samay mbokk samay rakk ak samay mag am déet loolu tey comportement la boo gisee damay ñam ni sax ak samay ma waxaguma dara bu ma eggee ci biir laay wax ndax kër ga ngeen waroon a ñëw ñëw ñëwul leen fa moo tax bu ngeen ma demee dama koy xaw a wàññi foofu rek waaw ba mais mais yëguma loolu fii laa ko yëg la dëgg dëgg la man war war ko loolu ñëpp yëg nañ ko àddina waaw di leen ñaanal yàlla na yàlla dafa taw fii xam daal du ngeen première dame moo nekk waaw waaw waaw kii sama mag la mooy code Paris am de di ànd ak samay ma nag yëpp ñu ngi noonu ñëpp fa kenn daal ñëw accompagne ma xadi tey bis bi nga xam ne tuddee ah, la ku yaatu la ku bëgg nit la te taalibe Serigne Touba la tey jii ku ko tuddee bés moom dafa mën bés waaye ki ko tuddee tamit nit ku baax la ku gore ku mën a fàttaliku démb la ñu kontaan trop ci bis bi franchement mënuma sax wax na dañoo kontaan. merci Cheikh code de Paris ana mu borom Paris ah code maa ngi lay. maa ngi leen di fay nee fa ñëpp gis bis bi ak Batika. kontaan rek surprise la xamu woon sax dañ ko tuddee laam dama ñëw rek yem ci mais sant yàlla frère bu baax. bu ñu bëgg Mansour aussi ku baax loox mu ni batika su ko neexoon du ko tuddee parce que am na ñu ko fi ëpp classe ñu ko fi ëpp xaalis. mais di ñu ëpp ko dignité yomb. mais personnalité bi ak fulla ak fayda ak confiance bi am ci moom moo tax mu tuddee ko làmb moom moom dañ koy ñaanal di ñaanal papam père ba batika bu feebar lépp la ciy def ñun ñu nekk France sax du ñu xaar. lu war da da koy def ci moom comme moom mënuñu koo fay ñoo bokku ndey bàyyi mais dañ koy ñaanal yàgg nañ koo taxaw xam sa mbëb yëpp kenn du ko bati ga. Ndeye Fatou. ça va Ndeye Fatou li nga sañ sa ah, merci kontaan say verre lan la. ñëpp a fa ñu ngi si jàmm. Ah, tey ji. kontaan bati ga sama frère la taawa man la ko tuddee. taawa man la ko tuddee muy sama frère bu baax ñu bokk baay ñuy doxal loolu kontaan nañ aussi ci Mansour waaw vraiment kontaan nañ. doomu baay neex na. waaw trop trop. madame Mbacke. Eh, say verre <laughs> eh, jong ma ah jàppale Batika rek su bis bi suñu frère bu baax la franchement code bi mu ñëwee wax ma ko yàggul mais daf ma ko man du ma génn du ma dem fenn mais tey il faut ma ñëw jàppale si Batika ndax nit ku am fula la fula fayda rek lañ xam ci moom suñu rakk bu baax la mu looloo tax ñu ñëw defal ko lii yëpp. jërëjëf. maa leen si mais Armand Ndiaye bu Wally Seck ngi nii. ngi nii. waaw man ah, ak mais Armand ana Wally. mu kër yéen a ngi dëbb réew mi de. waaw mais comme d'habitude rek. <laughs> comme d'habitude rek. dat yu baax yëpp yéen a ko yor. sant rek. lii neex ci musique yéen a koy def. macha allah macha allah. waaw waaw tawféex la. mais ci loolu. sant Ahmadou Borom Jaam. tey noo gisee làmb tey. yàlla na Franc daan jee jël bu set wicc. Arma nga ne yàlla na Franc. daan jee jël bu set wicc. jël bu rëy waaw. lamb lamb dafa war a a waaw booy dañuy war a ñëw comme ñoom ay mag leen def na ils ont tout fait Bombardier c'est un champion boo xamante ni kenn dootu ko naataam mais nag il est temps booy jël relève bi téye ko mën a rayante seen biir. jërëjëf. arène nationale ñun laa génn seen émission ñu ngi arène ñuy gërëm président Mansour Ba PDG tubaarkàlla liggéey bi teg na ko si yoon te jaana yoon mbokk yi ñun laa ak yéen ak Leral TV mais borom jaal bi moo ñëw. ci Talfa Cheikh ñoom jël Talfa Cheikh jéem a Talfa mais borom jaal baa ngi noonu borom jaal baa ngi noonu Cheikh xale baa ngay tomali yee Talfa Cheikh xale bi ni mu ñëwee baax na de xale bi ni mu duggee si làmb jaaxal na ma. ey borom jaan baa ngi noonu Talfa. ñang baaloo ngi noonu de. ñang baaloo ngi noonu de. laay xale yi dañuy làmb tey. waay Cheikh jëlee ma loolu ñang baaloo Cheikh jëlee ma Franc jëlee ma François maa ngi lay nuyu ci di daw rek mais tey tey yaa ngi ci bis bu rëy de waaw bis la xam nga jàmbaar production label bu mag la te heure bu wootee rek wax dëgg yàlla day def événementiel waaw dañ leen di féliciter ci journée bi di leen waaw ah, di leen wax yoon bàyyi noonu daal leen gën a doxal parce que ñoom seen ambition si làmb xam nañ si dara bëgg nañ ko yóbbu fu sore sore daal Fallou. programme bi foo si toll. waaw ñuy waajal samedi bii di ñëw muy la gàtt ah, diggante Fourrière bu Grand Yoff ak Bébé Jackson la Dior ñu ngi leen waajal euh, samedi daal incha allah fas yéene dund ambiance mbégte. bis bu la de bis bu làmb. nga si boole. ay phénomène la ñoo si fas yéene bëree te incha allah samedi ku ñëw si arène di nga màndi làmb Fallou. waaw mooy loolu. lu gars yi rek bu soobee yàlla. noo indee tey sa xarit noo indee sa si diggante moom rek dal ak di ñaan yàlla may ñu ndam yàlla suturaal ko quoi ko si cat moog talva ñëpp. yàlla mu dafa mel ne parcelle yëngu na de. non parcelle mooy gaan gars dañuy yàq kii wu gars yi quoi xoolal noonu de. ñang baaloo gi noonu de. yëngal nga sa public diggante safara safara toj na nen tojaat na nen yàq nga cuuj safara safara mënoon nga ko maynees làmb ji baat bi siflee ngeen dégg dëgg Albourakh Events maa ngi leen di nuyu kenn du yéen cey dimanche cey dimanche Abdoulaye Albourakh Events mais ñaari xale yaa ngi ci digg géew bi at baat ba arbitre baa ngi wax ak ñoom ñoom ñaar fair play nañ foofu fair play nañ foofu eh ñang baalo fudd demoon na Maroc ñëwaat ñang baalo ak safara cey làmb tey cey làmb tey ñang baalo dafa mel ne day bëgg a taxaw wala day yooru cey ñang baalo door na léegi door na jël na safara safara dajante ci suuf eh wuy sama yee eh, lii lan la ñang baalo lii lan ñang baalo doo de xale du nit de ñang baalo doo nit seex seex seex seex àdduna yàllaa ko moom yee wuy xale yi wuy lii wuy lii wuy lii kaay seex wuy lii ay seex ay seex ñaari kët seex boo yaa ngi sa digg géew ba ñoo nga digg géew ba jox na ko Franc jox na ko Franc sëgg na si suuf damay ñaanal Franc ndam lu ma la waxoon Franc laay ñaanal ndam waaw mbër waaw. mbër waaw maa maa bi dafa gaaw. ñëw ma ci bëri. taxawal Baye Balla. Baye Balla gars yi xamuñu ma. Baye Balla maa wane xeex rek. ba ma doon jàng xeex. lan moo tax ma ñëw samay premier combat deuxième combat wane xeex. dama si fay xaalis bu bëri. xam nga lu ma la wax nii. Baye Balla damay sant waa 100 m. damay sant waa 100 m bu baax a baax a baax. lépp lu nekk si man barki maam Seera Faal si koso nekkee si man. waaw non nan kaa nax nan kaa nax koo nanga rek ka rek baay nanga rek gaan baay baay ball gars lu may def lu may bëree lii moo si gën a ndaw lii moo si gën a ndaw su may gën a dem gars di gën a gu gën a xam kon mooy ñaang baala waaw waaw sant naa si yàlla bu baax baax def na effet bu baax a baax a baax waaw ndax xam rek dama nekkoon fii nii xam nekk si sereet yi xam rek gaan sama mère yaakaar si man waaye Balla barki maam Seera Fall instant yi làmb laa yaakaar dama ndaw ko sereet laa aw ma benn métier làmb laa yaakaar di sant nag ñu ma nekkoon ak Morok billaay wallaay. ci loo ne Baye Fall. alhamdulilah ñu ñëw ci combat Niang Ballo ak Safara Niang Ballo li mu bëri. ah mais Niang Ballo yow ah ay la xama dëgg yàlla aw ma ci woon sax ay tudd ak yooyu quoi xam naa ne. ñaan gars yi xamaguñ ko nañ baax ba ci kanam gars yi nii war a bëre tey yëpp incha allah gars yi xamaguñ leen nañ baax ba ci kanam incha allah ci kanam waaw kon nañu yónni yàgg nañu yónni yàgg yàgg bawul dara <laughs> jàmm ci yow jàmm ci yow maa ngi lay xale bi xale bi ba ko seetaanee mu bëre bi nga ko seetaanee mu bëre mais jëlli ba xale bi def moom nag Mballo champion la ku ko ñëmul doo ko daan ndaanaan la leen rek laa koy conseillé mu bàyyi foytu fu laal ci làmb loolu rek laa koy conseillé na fu laal boppam ci làmb wala mu bàyyi làmb la ko bàyyi di conseillé mais zéro faute jàmbaar la naanaan la. dafa mel ne lu mu woon Maroc feeñ na tey. na ko dëggal nag bu leen nee na dellu bu altan nee na dellu Maroc. jërëjëf jërëjëfati. dama bokk si làmb daama tamit daama daama tamit daa bokk si làmb. xale bi wax na ko yow ñang boo fawul. gafoo reyotaanoo dëggal sa bopp champion nga ndax li nga bëre ne ñëwal ci li nga bëre ndax nga ko de ndax nga bëre maa kii ñoo ko jàngandoo barke alxuraanu karim maa ngi ama mii nii lu mu man man dama kaa man man lu ma man moom da kaa man maa ngi moom a bokk fenn fu ñu jàngee bëre jàngee fa box mais gis nga yàlla mooy mooy xool nit rek lu ko neex rek mu def ko mais naam dama koy ñaanal barki maam Seera Fall laa la waatal su amaatee combat xoolal yàlla may ko ay i ndami ndami ndam barke alxuraan xam ne xam nga lii lépp ay cat la yoonu ndaw moo dul gaaw quoi. mais ñëw ci di nga bëri. waaw lu ma bëree comme li ngeen gis rek waaw xam nga rek gars yi dañuy si xeex. lu tax nga nax ko ngay suul say tànk. waaw dafa foogoon ni damay bagaar damaa mën a bagaar xam nu ñuy bagaaree mais damaa mën a naxan. mais ñang ji nga de. waaw mais yàlla mais ñang doo nit. waaw yow sama yow ñang yow yow doo nit. bilaay walaay li nga bëri tey dama def dama bëgg. waaw chaque jour gars yi di gën a jaaxle. chaque jour gars yi dañuy gën a jaaxle bilaahi. jàmm ci boo waaw jërëjëf Fallou. nuyu naa la. jaar naa la tey koo indi. Mamadou Ndiaye. Ah. Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye. waaw noo ko indi. waaw comme ni nga rek façon la Mamady kenn du ko conseil moom mooy conseil boobu moo xam ne li ko war. yaa ngi waaj bu baax. daa am maa ngi waaj baax di woo parce que yaakaar nañ di woo parce que lépp combat bi sama combat yaa ko jëlee sa bopp. su combat kenn sama combat la man. boole koo kii wax. dégg lu mu wax. kon amul wax. ku ma ci ma dem ku ma ci ma dem woo ma ci kenn. kon soxlawul xaar ma ci kenn. xaar sama combat la. parce que da ngaa defoon erreur. waaw li ci war lépp maa ngay def. daa am maa la eh booy kaay kaay loo leen di wax. kii sama xarit la. non loo leen di waxtaan ci loo leen di. moo ma si tànk ñu daan ma ma ñaan ko ñu daan ko ma nooy léegi ñu ma am ndam waaw. mais tey naka ngeen indee seen xarit tey naka la ngeen indee Youssou ko parce que ku bëreeg beneen na mi gën a ës daan ko talfa mun laa jaaxal yàlla làmb la ah, yàlla moo yor ndam di ko maye ñu ngi dagaan mu may ko Youssou Ndour mais am nañ si yaakaar quoi franchement parce que fi Youssou jaar ak fi Talfa jaar du benn xëy na coow leen boole sax mais làmb boolewu leen. noo indee leen Youssou noo leen ko indee. waaw Youssou làmb ji nee leen ko indee rek waru dóor la jàppul ndax Tafa mbalu Talfa mbalu wet la quoi moom xeex bi bëgg si dara day cuq si kaw ñëw suuf Youssou làmb ji da amul droit dóor la sëqul si keneen ba mu dëgër këcc doo ko dóor ndax booy bi li muy xeex bëgg ko bëri la gën a soxla ñu xeex xeex bi cuqantaan rek la koy def. dañuy yónni yàgg. waaw non maa la ko wax ji bi lees waxu. Fadam Siñoor ak Jaasi Pël Fadam Siñoor moo ñu wan ginnaaw Jaasi Pël la ñu lool Jaasi Pël da sew. sunu kanam yenu na leket ga Fadam Siñoor ak Jaasi Pël yu sundur ngi noonu fils de Balla la àndal. ey Seex Fadam dóor Fadam Junior moo ñu wan ginnaaw Diassy Peulh la ñu jàkkaarloo mbokk yi ci arène nationale mu daanu eh fa Diassy Peulh dóor na Diassy Peulh coup dal na de Diassy Peulh na ko coup bu dal eh dóor mbaa dóor mu daanu du Fadam Junior Fadam Junior Fadam Junior mbaa duñ la dóor mu daanu Fadam Junior Diassy Peulh ay ay bàyyi leen jàllantu bi eh Fadam Junior kor na ko dóor sigina jaasi pël li muy dóor moom lan la mel na kuy gor eh mbot dox na ko wet ba Fadam Siñoor moo ngay reculer Fadam Siñoor mooy dóor jaasi pël di reculer Fadam Siñoor moo ngi dóor Fadam Siñoor jaasi pël mbokk yi Fadam Siñoor jaasi na tànk bi jàll na tànk bi ñoo ngay xeex xeexu daan na ko daan na ko Fadam si ñoo daan na ko mën ndogo mbatum suuf laa ilaha illallah jëli bi rëy na oh Géejawaay am na ndam Géejawaay am na ndam am na ndam xoolal ma liiru jaan moo ngay yuuxu sëñ Bamba nga doy loolu. yow journaliste bu russe nga. ñu gis ngay def lu baax ci réew mi di def lu baax ci dëkk bi mais Bousse safara mi nga indi tey mu war a dayanteeg ñang baaloo. tey yi ma indee bari sama rakk laa njëkk a indi mu daan Bousse de. mu bii mooy septième combat am septième victoire te ñi mu daan daan na Alias Baldé dóor ko daan ko daan Franc Mbeur dóor ko daan ko titulaire mu dóor ko daan ko bébé Dégol mu dóor ko daan ko ak sax ceeb bu xonk mu dóor ko daan ko. kii mooy menaceur am. mais xale boobu xale boobu yoon la tey làmb jàppale ko. soxla ma làmb jàppale ko man rek dinaa ko jàppale mais nañ ko bàyyi xel. non dama day ñëw leeral. lan day ñëw loolu laa bëgg yow koo waxal mu dem ndax yow da ngaa baax. jërëjëf yow da ko ndam ndam lu seen guy. mu ngi bëri xale bu gannaaw. waaw waaye Youssou borom jaan ñoo ko yar xam nan ko. borom jaan la wëyu la. bandi la wëyu la. wëyu bu mag baa ngi ne Talfa. waaw baax na Youssou Ndour bandi. Talfa a nekk Youssou Ndour bandi. Talfa wëyu la waaw loolu nga yaakaar rek. Talfa ci kanam ngay comprendre. day xeex ci kanam ngay comprendre day bëree wet. ci kanam ngay comprendre xamoo Youssou. ba tey xamoo Youssou. Eh, billaay xamoo Youssou Ndour. xamoo Youssou Ndour ñun ñoo ko xam ñoo ko judlu dimanche gaañ Guédiawaye gépp ñu génn ñu jàppale Sa Thiès seen doom bu Siteu la ciy bëre ah, Mbaye Tine da ciy bëre ah ah kii ñaan Guédiawaye gépp ñu génn ñu gëgee euh, Sa Thiès yàlla may ko naw autorité Guédiawaye gépp nañ génn jàppale ko dooleel ko ndax tey waa Pikine waru ñoo yóbbul dara ci stade bi jërëjëf incha allah jërëjëf manqué am ndeysaan les rois des arènes ñëw na Modou Lo ay waay tees waay Cheikh Modou mi Modou waxal ak nit ñi xool Youssou li mu indi xool ko fee kaay. mais Youssou Ndour mi kaful de mais Youssou Ndour kaful de ma ngoy sol yére ba ay waay Youssou Ndour ay waay Youssou Ndour nee na yi diggante Talfa ak Youssou Ndour Youssou Ndour a ngi noonu di dox di dem. Youssou Ndour a ngi dox di dem. fu mu jëm biteel lay jalaat am na lu muy jalaat de moom Youssou waxiñ mbañ dañ dañ dañ taali bàgg war na mbaam talfa dox ci diggante moom ak Youssou nduur Youssou Ndour a ngay génn derrière joxe na la mu yor teg tal la delluwaat na ci géew bi waaye moo ngi borom jaan baa ngi taxaw rek na cëcc cëccaaral ñaari xale yaa ngi ci digg géew bi mbokk yi ñaari xale yaa ngi ci réew digg géew bi diggante Talfa ak Youssou Ndour Youssou Ndour moo ñu wan ginnaaw Talfa la ñu jàkkaarlool mbokk yi ci arène nationale Alamar maa ngi lay nuyu arbitre bi sifflé Youssou Ndour Talfa mbokk yi diggante Parcelles Guédiawaye eh Talfa jël na ko Talfa jël na ko Talfa jël na ko Talfa foofu nga dugg maa diisul Youssou Ndour Youssou Ndour lim def noonu Talfa Youssou Ndour Talfa ki ngay baleel la mu ngi planqué Youssou Ndour Talfa Youssou Ndour jàppante nañu Youssou Ndour jàpp na Youssou Ndour daan na Talfa Youssou Ndour daan na Talfa Youssou Ndour daan na Talfa Youssou Ndour daan na Talfa fair play ñoom ñaar Talfa ñàkk na laa ilaaha illallaah bi ñàkk na gémar bi ñàkk na ee eh Youssou Ndour loolu li ngeen digal xale bi lan la lamb ji bari woon na coow ñu jël favori bépp jox ko Talfa mais bëri. waaw bëri bu koy maam la rek ñun xam nañu Youssou mu am 18 victoire tey mu nekk 19 victoire am kii am 6 victoire bëgg ñu jaaxal day li nga wax amal fu la am fayda teg sa bakkan xam ni kii yaa ko mun yaa ko dàq yaa ko dàq la nga wax. xam Youssou dama dem si kaw bu yàgg yow xam nga loolu. li ma jaaxal dañoo gis beneen Youssou Ndour tey. mais loolu loolu moo ko war xam nga lan nga conseillé amal fulla am fayda am jom yaa ko dàq bëre yaa ko doole yaa ko fit. sa diggante xale yi lan la. waaw dañoo bëgg ma bëgg leen rek. waaye ku mu waaw yàlla jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla sunu borom ñu bëri nañoo jël seen bët teg ko géejawaay di xaar leneen yàlla ko gis te yàlla du ma rusloo yàlla du ma rusloo maa ngi ñaan yàlla maa ngi ñaan yàlla dimanche yàlla saa kees daane ni amat seen ci daraja Alaaji Fàllu Mbàkke billaahi wallaahi wa xol bu set di wicc wicc wicc la am yéenoo ma gàllu boon yéenoo ma gàllu boon te yàlla lay fay maa ngi koy ñaan ci naa ci sëñ Fallou Mbacké saa kees dimanche yàlla na daane nii te kii xamuñu Youssou Ndour xamuñu ko ñun ñoo yar ñoo ko juddulu bi muy nekk xale maa ko jëkkat Youssou Ndour lay waaye Talfa Baye Fall Fall ci la nice alhamdulilah noo gisee la waa neexa ah, mën nañ ko wax ndax jàmbaar moom yaakaar naa ne bu ñu tëggee rek événement lay doon di leen ñaanal bu baax a baax yàlla defal leen jàmm su ma juumul bi mooy seen quatrième journée heure bu ñu rek ñu am nu ñu def arène bi di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm booy. ana albur. waa maa ngi ko bàyyi kër ga nag muy añ rek maa ngi ko bàyyi muy añ. muy añ. waaw mi ngi añ waaw. waaw deux heures mi ngi añ. kon moom tal na. waa mi ngi añ. waaw mais tamit làmb moom daan la ak daanoog match nul di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ndax bi moo douzième combat mi ngi door a mu ñëw ki ko daan nag war na koo mën a daan ndax moom yaakaar naa ne mbindaani sax dañuy bëre xam nga làmb la daal. te xale la aussi di ko ñaanal rek mu gën a liggéey xam nga gën a nekkaat ci li mu nekkoon làmb da koo soxla ndax koo xamante ni boo tuusee mu neex boo bëree mu neex boo waxee mu neex comprendre nga waaw làmb daal la ko. yàlla balaa Koulibal yàlla jërëjëf jërëjëf. organisation CNG ci làmb ak ci bisu tey gis nañ jaar yoon bi mu jaar yoon liggéey bi da koo gën a yokk wala da ngeen di daje di waxtaan ci ay couleur ak waa membre CNG yi. non léegi lépp lañ boole alhamdulilah bu ñu boolee suñu expérience boole également fi ñu jaar boole également chaque fois que làmb ju rëy di am ñu dajale lépp luy acteur lépp luy composante de la lutte ñu toog waxtaan autour d'une table le commandant Thioune volet sécurité le président Cheikh Sarr volet organisation Thiam vole supervision ak toute l'équipe de l'organisation du CNG derrière le président en charge de la lutte avec frappe derrière également le président Bira forcément liggéey bi nii rek la mën a joxe ñuy sant yàlla bu baax nag di féliciter également les autres composantes de la lutte parce que chaque fois ñu poser jalon pare nañ également pour accompagner ñu dans cette œuvre là. jërëjëf merci beaucoup. parce que il nous met dans de très bonnes conditions xam nga moom moo jiitu mais faxasal daf ñuy won yoon bi mais Leral TV yéen nan ngeen di préparer drapeau non dans la poste il fallait que yéen ngeen wooñu par force la foog ñu waxtaan ci waxtaan wu rëy mais moom nga parce que drapeau chef de l'État yéen la dama leen dina président président nii foog ñu waxtaan ak ñoom mais plateau mais mais ku baax a ngi nii c'est ku baax a ngi nii ku yaru dama ni c'est le meilleur le plus technique le plus disponible xam nga man ma jotu waxantu su ma ko waxee am na fu ma ko teg. donc dañu ñaan rek cat féexlu ñu ca kaw ca kanam incha allah. ndax gis nañ ni donte ay espoir ñoo ciy bëre mais combat bi fees na ndax Franc. waaw comme lu may à chaque fois Franc nekkul bombardier la war a bëreel bu ñu waxantee dëgg léegi ñu war a bëree moom. nañ bëreeg moom bu ñu bëggee combat yoo xamante ne nii le fees bay tuuru ñu war a bëre nañu bëre seen biir. Fra a am na stade ñu koy waxal ah, non man Fra bu ñu xool keneen ku muy ñu jox ko avance mu bëre moo keneen rek. Cheikh Jalle ma bombardier Cheikh. Cheikh Diallo Bombardier ñoom pare nañ te présenté guñu leen François Émile Gomis lay wuyoo jàkkaarloog Bombardier le B52 Serigne Dia Youssou Ndour a noonu daan na Talfa Mbour wala jàkkaarloog Franc jàmbaar académique weeg seen ñaari jo Bombardier moo ñu wan ginnaaw Franc moo ñu wan ginnaaw Bombardier Franc arbitre bi sifflé na diggante Bombardier Franc diggante Bombardier Franc ñu ngi lewtoo Bombardier mu ngi direeku di ñëw Bombardier Franc Bombardier mu ngi doon Franc Bombardier Franc Bombardier Bombardier eh Franc daan na ko wuy sama oh oh oh Franc daan na ko jël bu rëy yëkkati na ko ay waay Franc daan na Bombardier Franc daan na Bombardier allahu akbar. ma grand nga. man ba ngay bëre. boobu maa ngi lu ndaw di seetaan. comme sport moo gagné. tey moo ñëwee ba toll fii. comme ay ma sens. maa lay sant la gërëm. sport la. tu as tout fait. nga lépp. yàlla nga am leneen lu gën lii. yàlla nga am leneen lu gën lii grand. Franc ngi noonu mbokk yi Modou Lo jël na ko Modou Lo yëkkati na Franc yàlla na ko yàlla fay xolam wallaahi moom rek laa gis ci combat bi ak maam père ba ba xam nga boobu dafa tombé ay fête. non Modou Modou waaw ma rek. déglu ma rek kii kii suñu grand la dafa nekk suñu grand nekk suñu kilifa Modou xoolal yàlla na ko yàlla fay xolam wallaahi yàlla na ko fay xolam xoolal waxuma de waxuma de dafay dem Europe fête jot mu jëndaloo billet jox ma xaalis bëri ne ma bàyyi sa kër déggoo ma de mu ne ma bàyyi sa kër démb mu yónni nit. jox ko ay billets yu bëri xaalis bëri. mais ñun ci combat mais yal na ko yàlla fay. mais ni nga bëree ni nga bëree ak. yal na ko yàlla fay. amiin amiin amiin ni nga bëree ni nga bëree. mais Modou. mbokk yi kenn du ko présenté Père Salla Bigué mbokk yi kenn du ko présenté ki mooy Père Salla Bigué mais góora ki mooy Père Salla Bigué suma papa suma xarit man kii mooy sama idole kii mooy sama idole nit ku baax la. pe Vincent Lambigué Franc ak Bombardier seetaan nga bëre bi jël bi Franc daan Bombardier lan nga ma ciy mën a wax. boo dee ko ñaari jël la njëkk na def quatre appuis arbitre bi sifflé na mais Franc dafa àggali c'est-à-dire loolu moo lay wan nii sport day faral xale. Bombardier de mérité wul dégg na ñaari yoon droit des arènes. dëgg na te moom rek mooy mbër bi jóge ci petit code bi ñëw di def ay ravage fii ci Ndakaaru Cap te di may xale yi sens ba pare nag bëri ay magam bëri ay moroomam may ay rakam chance sportif la c'est un grand sportif ñu ngi koy encouragé di ko xamal ni làmb nii la du ak mas ak dabante la Franc nag li ma waxoon leen ci reportage bi rek xale la sarax leen dongali mbaa mu tibb ak dooleem lay def ku mu daan la bul bëre moom mën na bëre mën na xeex ñime na te ñett yooyu boo ko defalee boo ko mbër amee loo ko takkal bu demee bëre daan ba pare 100 pour 100 parcelle war na yee écurie yëpp su nga parcelle li ñu mel nii buñ ko teggiwul ay roi des yu bari na fu juddoo. lu am la man maa la wax lii. lu am Pikine nañ ko def Géejawaay nañ ko def écurie yëpp nañu booloo gox yëpp nañu booloo nekk 100 pour cent jàppale seen seeni doom doomu gox mooy jàppale doomu gox parcelle félicitation gis nga tey Modou Lo. li li Mansour Ba def rek. ak teewaayu Modou Lo. waaw fii ci arène nationale beneen affaire xam nga Mansour Ba promoteur la mais dari damay tëgg yeneen mbëri de mais samay mbëri gox. ba ma leen dugal ci combat yëpp dinaa jël yeneen mbër yi waaye su ma mbëri gox dama dóor Modou Lo mënoon na ni maay roi des arènes lu ne am na ku ci làmb mais ku ciy bëre day ñëw ànd ak yow tous jàppale la ci sa bis gis nga léegi bi Franc daane bi ma interviewé Franc ba moom laa dékk micro Franc wax ni Modou Lo non seulement daf ko daf ko jox billet mu dem Europe ni ko préparé ba pare yëkkati wax xaalis bari def ko jox ko ba pare ñëwaat àndaat ak moom ci bis bi sëñ nit boo ko mënee boo ko mënee dimbali da koy dimbali. da koy dimbali. garab nag bu la sutul du la may ker. mais mais mais xam nga lu ma jaaxal mooy novembre ñoo ngi jëm ci novembre muy date bu rëy muy Siteu Modou Lo. waaw. Eh. mais gis grand contre petit dafa xew. te dafa xew de. mais nag Siteu na xam ni Modou Lo roi des arènes lay bëreel Modou aussi na xam ni Siteu xale la am na détermination ci lay bax la am ruq bu sedd. jërëjëf. ànd bi ngeen ànd ak leeral TV leeral point net xale yi maa ci mën di nuyu sama yaay naa satu ndax tubaar tubaarkàlla jàpp na ci yére bi. jàpp na si sañse bi di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm mbokk yi ñun fii la ñu dëkk ñun fii la ñu dëkk ci banlieue bi gën lañ dëkk Sicap Mbao lañ dëkk Tëlimaam jaar lañ dëkk amul lu ñuy ragal ñun xamal la lañ bëgg jàmm lañ soxla ci réew mi mais ragaluñ dara mbokk yi émission fàqat la man la fàqat fàllu xale baa ngi nii mbokk yi di lañ jox dig daje beneen yoon ak Leral TV laay bu deev yàlla sunu borom defal la jàmm yokk la may la gudd fan ba ànd ak yow suma xarit nga dama yi ñaanal gudd fan bu ànd ak wér Aliou Traoré mbokk yi sargal premier président Mansour Ba ah le premier juin sargal président Mansour Ba man maa koy def lépp. suma doom la kooku suma xarit la let's go dama koy yoole de <laughs> ragaluma dara naasatu mooy sama yaay jàmm ci.